internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir yu wér te ci réew mi ak ci bitim réew. Seneinfo. mu eh, ñoo ngi leen fay salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ni ñoo bokk département bu Kër Massar imaam yi ak mboolem ñi nga xam ne mooy seen daara yi ti ñëpp lislaam bi tax leen a jóg. noo eh, ngi fay sunu mbokki journaliste yi nga xam ne ñëw nañu pour siiwal lii nga xam ne moo taxoon noo waroon suñu dajub tey bi man nag maa tudd imaam El Hadj Malick man la yàlla jiiteel si département wu Kër Massar man ak nga xam ne ñoom laa àndal muy secrétaire général bi di monsieur euh, Moutoudi euh, Mansour Cissé ak euh, trésorier bi di Bakka ak ki nga xam ne mooy vice deuxième vice bi nekk fii sama kii ak ñi nga xam ne ñoom lay àndal yëpp. ci département bi. sëñ waaw xam nga euh, imaam dafa am rôle bu rëy bu mu war a bu mu war a euh, jouer société bi mooy stabiliser lépp loo xam ne situation la muy koo xam ne dañ koy war di dellu si si moom di ko di taatan ay xalaatam ndax jàng euh, ni muy saafonteeg population bi nit ñi di jaxasoog ñoom di xam lu bare bare bare si li nga xam ne mooy xëy si réew mi non seulement diine ji waaye nag société bi ni muy dundee dañuy lu gën a bare dañuy ñëw du ko waxtaan ak imam mu leen di jox ay xalaat ak di leen delloo ci yàlla ak di leen delloo ci loo xam ne dana tax jàmm am dal am kon imaam yooyu nga xam ne ñoo nekk ci bopp euh, société bi ci bopp réew mi bopp département bi war nañu daje boole seen kàddu ndax wéetaay waru leen ndax kenn ku ci ne la nga xam war nga ko xamal sa morom ñu am euh, niveau boo xam ni bu nu waxee ñu xam ne ñii borom yi kàddu lañu te ñu saytu suñuy kàddu fexe ba population bi ñu te ñu xamal leen li nga xam ne mu ëllëg tey ak ëllëg mooy jëmale réew mi kanam te Eh, dana tax eh, imaam yi itam nekk benn àndandoo yëkkateendoo tegandoondoo lii daal mooy tax li nga xam ne moom moonu boole tey def ko fii ci Kër Massar bëgg Kër Massar yëpp ci juróom-benn commune yi nga xam ne moom moom moom la constitué eh, ñu ànd bokk ndey bokk baay xam li nu boole xam alxuraan bi nu xoolee xam sunne bi nu boole xam njaboot bi nga xam ne ñun leen ñuy déglu ñu laaye leen biir si lépp loo xam ne dina yéwénal dund doomu adama ci wàllu addunaam ak ci wàllu alaxiraam département bu bees la mu na imaam yi am fi mm. ndaje tey ndax da ngeen di tollantiwaat waaw xam nga Kër Masaar dafa euh, tafu woon ci Pikine yàlla mi dogal ci dogalam ak lu xew mooma lu am mooma def Kër Masaar nekkaat département comme ni ko Pikine nekke su ko defee kon taxawaay bi fekkoon na fi ay dëgg la ay association départementale ay wala ba communale yu demee noonu léegi nag association communale yooyu ñoo boole seen bopp créer beneen boo xam ne mooy association départementale nga xam ne léegi commu euh, communal yooyu association communale yooyu bu ñu demee ba am ci jafe-jafe seen biir bu ñu ko lijjanti ñu woo département bi mu ñëw lijjanti ko département bi bu demee ba nga xam ne problème yi fi xew mënu koo lijjanti mu seet euh, association nationale yi ko su ko defee diine ji euh, ci nekk day complété morom ma kon suñu taxawaayu commune yi ñoo leen bu ñu jaaxle si ñun ñu jëm ñun ñu jaaxle dem ci national national bu jaaxle dem ci ñi xam ne ñooy kilifa diini yi wala ñu yor nguur gi pour problème yi nga xam ne moom la réew mi jànkoonteel ci wàllu bu mu mën a doon ñu mën caa yëkkati seen addu seen kaddu mën caa taxaw seen taxawaay bi nga xam ne moo leen war. yéen lañ dénk diine ji kuy takk sëy ku juddu ku faatu yow koy dénk te yéen a ngi fekk Kër Massar euh, préfet bees am na euh, ñu ngi fi ay rajo ñu ngi di boole ci ndaje bi. waaw fi nii comme dañuy soog a euh, mën a juddu Euh, bu doon fanu mii noonu daan nañu boole si lépp lépp lu xew daan nañ ci bokk ba ne fële ca Pikine waaye comme ñëw nañu fii nag eh, joteguñu jaxasoog ñoom jaxasoog mat waaye président départemental bi ak euh, euh, maire yi nga xam ni ñooy ñooy gérer communes yi ñoom ñi ngi jaxasoog ñoom ñi ngi jàkkoo ñoom ñi ngi waxtaan ak ñoom bon préfet sous préfet it ñi ngi jokkoo travers président départemental commission départementale bu bu Kër Massar niki noonu autorité yi nga xam ne mooy gendarmerie bi mooy ak lépp loo xam ne autorité la rek ñu ngi jokkoo ak ndax ñoom it mënuñoo dem bàyyi nu fi ñu mun ñu def bàyyi leen waaye jokkoo bi na mu war a amee nag des na tuuti ndax it day buy soog a liir buy soog a juddit bàyyi ko ba mu xaw a euh, seq ay tànk. nga soog a mën a euh, wax ko li ngay wala nga def loo ko li nga li nga bëgg. laaj bi mu jëm ci lépp loo xam ne mooy euh, jamono bi dafa yéeme lool bëri na ay gàllankoor te yéen am ngeen ci ay baat. lan ngeen di wax askan wi léegi ñu jëlu ci yàlla fekk encore ñu si jurum kaaraangeeg yëpp daal. askan wi nañu ànd ak dal nañu ànd ak muñ nañu ànd ak respectante nañu ànd fonkante nañu ànd ku ne bàyyi sa morom xel am réew dañu koy pencoo nañuy pencoo xew-xew yi nuy bokk problème yi di ko seet ni ñu koy des durée nañu bàyyi kenn loolu neex waay wax loolu neex waay def liw neex waaye wax lu neex waay def loolu du defarum penc. am penc dañ koy pencu yàlla nee na shaawirhum fil amri fa iza azamta fa tawakkal ala Allah lépp looy def da nga koy diisoo loolu la yonent bi santoon yonent bi boo diisoo ba ngeen trouvé solution nag appliqué ci jàppandiku ci yàlla subhanahu wa taala kon réew mi ñooy woo mboolem doomu réew mi moo xam ñi yilif la moo xam ñi ñu la moo xam ñi gouverne la ñoom ñëpp nañu dajaloo joxante loxo te xam ne ñoo bokk réew mi nuyu koo tas te ñoom ñooñu kenn moomu ko ci du ñi nga xam ne ñooy ñoo moom réew mi du ñu ñu gouverner ñoo ñoom moom réew mi kon askan wee moom réew mi ni ñu jël kàddu gi delloo askan bi waxtaan ak ñoom yor leen parce que loolu taxoon ku ñu falu ñu fal la ku ñu bëgg ñu euh, ku leen euh, ku ñu yaakaar ñu jëlee leen kanam kon ñooña dañu war di waxtaan ndax askan wi kat waxtaani ko jik jàmm ko jik jàmm la ñu woote yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. jërëjëf mm.